kaw ya masalul insi wal jinni ni rasulullah nee na di julli ci Baay Laay mi xayru xalqulaahi di ñaanal sunu xalifa jotti leen ndigal la Baye Doudou Mokhtar lay sunu khalifa sunu khalifa na fi yag lol te am wér. nee na fi yag lol te ànd ak wer ñu ngi contane neena mi ngi begg comme nin daan beggé comme nin daan beggé ñu ngi sant. neena ñu ngi sante comme daan sante comme daan sante. ko ma sante yalla neena xawma de kan mo wara sante yalla ay waaye ñun ci leen wara jitu way ñun ñi la ñoo ci wara jitu ndax. nee na ndax. ndogal li nga xam ne sunu borom def na ko fii. ndax ndogal li nga xam ni sunu borom wàccee na ko fii. wàcceel ñu yonent yàlla Isa alayhi salaam. nee na wàcceel ñu yonent yàlla Isa. alayhi salaam. salaam. muy. jëmm ja nga xam ne. jëmm ja nga xam ni lépp lépp lépp loo xam. ci àdduna. ci àdduna. fii.

ba tey. ba tey. ñu am liberté. ñu am liberté. pour mën a dem. mën a dem. ci ñu weex ñi. ci ñu weex ñi. ak ci ñu ñuul ñi. ak ci ñu ñuul laaj. ñu mën a dem. ñu mën a dem. gëstu. gëstu. xeetu xam-xam bu ne. xeetu xam-xam bu ne. ndax moom. ndax moom. mooy ki ko def ci ñun. mooy ki ko def ci moom. waaye mbégte bi may bëgg a wax. nee na waaye mbégte mii muy bëgg a wax. mooy mbégte mi ma am. nee na mooy mbégte mi mu am. ci jullitu yàlla yi fi daje. ci jullitu yàlla yi fi daje. ak sunu baay yi fi toogoon. ak sunu baay yi fi toogoon. ak sunu mag yi fi toogoon. ak ay magam yi fi toogoon. seeni kàddu. seeni kàddu. rafetlu nañ ci yéen. nee na rafetlu nañ ci lépp. ndax lépp rek. nee na ndax lépp de. am na. am na. fu mu jëm. fu mu jëm. te fenn fu ne. te fenn fu ne. dem. fu mu fa dem. dina ko defar. dina ko defar laay. waaye fii ma toog. nee na waaye fii mu toog. mënu ma fee jóg. nee na waaye mënu fee jóg. te du ma ñaanal. nee na te du ñaanal. Sénégal général Baye Dine. ak Sénégal ak Sénégal. ak bii ñu ne. ndax bii ñu ne. soxla na. soxla na. jàmm. jàmm. Sénégal gii ñu ne. soxla na jàmm. soxla na jàmm daan dégg. nu daan dégg. ci yeneen i réew. ci yeneen i réew. tey jii. tey jii. moom la ñuy gis. moom la ñuy gis. si sunu réew. si sunu réew. kon ñu